auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad ibni abdullah wa ala alihi wa ridwaan wa tamkin mbokki di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi siyaara ma bëgg a def leera bu gàtt rek mm, mbokk planètes yi nga xam ne ñooy wër jant bi tënk bu gàtt rek ak jant beeg weer weeg suuf si euh, ñi nga xam ne ñooy wër di seet di wax naan biddiw sàngam waxtu sàngam lay fenq waxtu sàngam lay so heure sàngam leer na heure sàngam lëndëm na yooyu xañ na duma ci dugg détail boobu waaye ma di xamal ne bidiw yooyu ngeen di wax ak planète yooyu du tege ne waxtu wu nekk heure ba ñuy fenk moom fenk chaque jour dafay sensé comme jant bi ci wax dara ne mooy sa bidiw mooy sa planète xattaari mooy sa planète suhra soxal euh, mustari mariix yooyu dañuy sensé amu ci benn boo xam ne chaque bés bu nekk heure bi nga fenk mooy bi nga feeñ ëllëg moom ngay feeñaat yooyu dañuy sensé tout le temps réglé wul nekkuñu benn temps rek di ci fenk di dem bu ci nekk bis bi nga fenk bi nga feeñ tey fenk mooy feeñ bu ëllëgee doo feeñ bi booba heure bi nga fenk ci bëccëg gi su guddee heure boobu doo ko fenk loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax ba yooyu ñu leen ciy wax ngeen bañ cee sukkandiku cent pour cent muy soxra muy xataarit muy soxal muy mustari muy euh, euh, xeet yooyu mariq bu ñu fenqee ci bëccëg bi su guddi jotee beneen heure la ñu fenq bu ñu feeñee tey dimanche comme tere dimanche bu suba altine beneen heure la ñuy feeñ ñoom maanaam fixé wul waxtu yooyu fixé wul am na ay kayit yu ma gis nit ñi def ko muy ay naan waxtu yu leer yeeg waxtu yu lëndëm yi fixé ko ci ay heure loolu fixé wut ci xam-xam fixé de téere bu ñu ko mën a jëlee njuumte la heure yooyu fixé wut ngeen bàyyi ko xel dafay toxu waxuma ci jëmmi lañ cay wax waaye jëmmi heure yooyu ñu fixé fixé wut amul benn heure bu fixé ci àdduna amul benn bis bu bu fixé yee fi nekk mais day sensé dimanche bu ñëw ba jàll jeex na beneen dimanche ay ñëw heure bu ñëw ba jàll jeex na beneen heure yi ñëw biddiw yi nekk ci asamaan si mbooleem planète yeeg yëpp fixé wuñ ci ay heure comme jant bi bu fenkee tey heure sàngam bu soobee beneen heure lay fenk amul leen temps du fixé temps moom ku koy jàngoo temps amul benn saa buy fixé dafay dafay dox di dem loolu mooy tax àdduna di mën a continuer dund gi continuer bu fekkonte ne heure yi dañoo fixé nit bu juddoo lu am dara at at yi fixé wun weer yi fixé wun bis bis yi fixé wun euh, semaines yi heure yi amul lu fixé bañ jël ay ay ay ay ay heure di ko fixé onze leer na midi dafa lëndëm xañ na loolu am na waxuma jëmi jëm loolu ñuy wax waaye jëmi heure bi ñu ko fixé noonu nga xam ne midi moom ci nangam rek day day day day day lëndëm ba faaw wala onze nangam day leer ba faw loolu amul dafay te lëndëm ak leer yooyu ñuy wax xañ na yooyu yeneen du ma ci dugg ndax nit ñi moom fi ne dañoo toll foo xam ne lu bari ci xam-xam boo ko waxee bari ay noon dañuy mujj di la noonoo di la saaga lu nañu dugg ci te yooyu jëru ko waaye dañoo war a dem jàngi xam-xam xam-xam dañ koy jàng ba mu leer nit ki day jàng xam-xamu sharia xam-xamu sharia moo tiim xam-xam yépp ba luñ lay wax bu génnee bu ko génnee nga xam ne wérut heure yi dañuy fixé wul dañuy daw loolu moo indi dimaas ba samedi indi bëccëg indi guddi indi suba indi ngoon indi waxtu yu wuute amul lenn lu fixé ci benn place ba ñu jël planète yooyu di ko fixé ci ay heure nga xam ne du sens amul euh, exemple ñu jëlee lu mel ni mustar yi tey ci bëccëg bi tey euh, le le 2 euh, octobre mustar yi mi ngi war a fenk onze heures cinquante day suux midi cinquante waaye su guddee du jëlaat même heure bi man man na fenk ci heure yi may wax six heures ci ngoon cinquante ba sept heures trois wala ñu demaat ba euh, une heure cinquante ba deux heures cinquante noonu lay tëdde amul lenn luy fixe ñu bàyyi ko xel jamono yi ñu ngi ci xattaale mi ngi fenkoon à huit heures cinquante trois day suuxaat neuf su suñu demee ba trois heures cinquante trois mu fenk quatre heures cinquante trois mu suux mais guddi gi dafay sens du amat ko même heure yooyu moo tax ku lay fixé ci heure ñi lay seetal naan la biddiw sàngam mooy sa biddiw heure sàngam lay fenk heure sàngam lay so buñ ko fixé rek wérut warut a amul lenn lu fixé planètes yi dañuy daw di wër jant bu ci nekk am ci loo koy wër heure yi di ko lépp di ko amut lenn lu dul am taxayur maanaam changement waaye bind saw këyit rek fixé lépp heure sàngam ba heure sàngam dafa leer heure sàngam ba heure sàngam dafa lëndëm loolu sax ñu koy waxee noonu noonu ñu koy waxee naan daa leer daa lëndëm sax ñoom ñoo xamul lañu waaye demul noonu jublu ñoo wax loola da ci am planète yoo xam ne dañoo sori kaw am ci yoo xam ne bu ñu fenqee tuuti gañu tuuti fa ñuy nekk pour leeraay bi nga mën koo gis dafay jafe am ci bu ñu fenqee dafay leer comme mustar yi planète mustar yi dafa jege dafa leer kooku ni ñu koy gisee munta bokk ak suxal munta bokk ak yeneen ñi gën a sori kaw te moo ne am na yeneen yu limul ñoom ñoom Nipton Pluton euh, euh, xeet yooyu ñoo gën a sori kaw te moo ne dañuy fenq bokk ci système jant bi lu pourquoi ñu génn yooyu ci système mu jant bi jox leen rek ay planètes yi yi gën a jege nii rek ay xaataarit ay suuxura et cetera nangam xam nga suuxura dafa jege parce que suuxura mooy bi gën a jege suuf si kooku bu fenkee dafay leer mustar yi la même noonu bii di ko seq ci wet gi suuxura da koo féete digganteem ak jant bi gën koo jege mustar yi féete ko ginnaaw suuf si dox digganteem ak jant bi mu gën koo jege moo tax ñaar yooyu chaque jour dañuy leer léegi seen leeraay googu ñuy leer nag boo ci bëggee sukkandiku ne waxtu yi dafa leer wala dafa lëndëm da ngay dem nga jàng ko jubluñu te wax loolu maanaam ñoo wax ne heure bii dafa lëndëm déedéet planètes yi dañuy féey féey boobu ñuy féey di gën a sori ak a jege am ci yoo xam ne cercle yi ñuy nekk dafa sori am ci yoo xam ne cercle yi dafa dafa suufe xam yooyu la ñuy jubloon a jàngale am nag ñu ko copier di ci doxal seen intérêt personnel bind ci seeni téere di ci tardeel nit ñi këpp këpptal leen ci yu bare baree bari te yooyu matu ko euh, alhamdulilah ñu ngi ciy bind euh, xañ na noppeegul ñi ngi fexe def suñ kem kemtalaay kàttan pour mën a génne euh, burju yi fukk ñaar génn seeni tabian comme ni leen yàlla bind nature bi niñ mel génne wax maanaam burju bu ci nekk tuur bu ci nekk wéru fa jant ba yegg ak weer mu koy genn génn ya aju ba ku ko soxla man ko jëfëndiko genn tamit planète yi nga xam ño yor waxtu yi yoy yëpp ñi ngi ci xam dafa sotégul waxtu wu sottee ñëpp nañ ci jot ba ko ko am mu nekk gratuite nga xam ne loolu du nekk loy wuti ci kenn xam-xam la dañ koy jang comme niñ téré yi eh, yeen matière xam-xam yi ba wër ko nga xam ne wu nga dem ci nit diko jox alal wala nangam ak nangam. donte lu ci nekk am nañu ko météo waaye xam-xam yi ñuy jàng ci téere yi ba pekk xam-xamu ilmu nujoom bii noonu la mel ilmul fëlëg noonu la mel dañ ko war a jàng lu leer la daanaka mën naa ne amul xam-xam bu ko gën a leer suñ ko cee noonu danañ ci leeral yu bari te li la ciy jàngal ren déwén mën na saase ngeen bàyyi xel loolu parce que ñu taxawut gën mën na saase Euh, euh, jant bi jamonoy sedd ak jamonoy tàngoor ak atum daaw ak atum ren bokku nu ñu doxe loolu moo indi nawet bi di tourner dafay tourner bu doon dafa sax benn barab at mu jot nawet nawet bi di tourner comme ñaari calendrier yàlla ko bind muy jant beeg weer yu ñu roofaloo moo indi wu maanaam soflante gi ñuy soflante ak weesonte gi ñuy weesonte ak dugalante gi ñuy dugalante kon loolu nekkul lu fixé bañ koy fixé amul ben at bo xamne bis bi nawet bi tambali ci la même datu jant bi la même datu wer wi at ba ci tok mom lay tambali lol mo waral lele muy genn ci koor gi di dugg ci koor gi di dugg ci rebeuski gi di ko génn di dugg ci gàmm gi di ko et cetera parce que ñaari calendrier dañuy rombalante wer wi dafa jitu jant bi top ci laayeen euh, bi jant bi munta dab weer wi ndax weer wee jiitu la samsu yanbaghi laha an tudrikal xamara kon weer wi toppul ci ginnaaw jant bi dafa jiitu jant bi bu ko bu toppoon kon siixa aaya bi tëgginu aaya bi du du tëddee noonu la samsu yanbaghi laha an tudrikal xamara wala laylu saabiqu nahaari ni nga xamee bëcc gi moo jiitu guddi gi guddi gi topp ci moom yux si laylan nahaara guddi gi day ñëw ëmb topp ci moom yàgg boo xasiisan mel ni koy dàq muy daw noonu la yooyu tëdde nañ ko bàyyi waaye nekkul lu fixé bañ ciy fixé nit ñi dëgg la ku juddu ku nekk am na bis boo juddu ci weer wi ci semaine bi ci at mi bis boobu nga juddu mu dajeeg benn burju burju boobu léeg mu am ñaari planètes yu koy wër wala benn planète burju boobu am tabian Euh, burju bobu am am am couleur melo ñu jox la yoyé lolu amna mais nak taxul na ñu bëgg jël bidiw ba ba nga xamné ma nga ci biir burju boba fixe ko ci yow na la yow sa bidiw moy mariix léegi da ngay ñak wërsëg ak léegi da ngay am wërsëg ak bu soré kaw ak bu suuf ak yoyu amu ci ben xam-xam bo xamé né bu tax bu wër la ci non ñom ñukoy waxé non la ci wër dal moy bi nga juddoo juddu bi sangam ñaata fan ci wër sanggam. ci at sàngam burju bi nga dajal dëgg la mën na jaxital ci yow burju boobu am na ay planète planète yooyu dëgg la mën na laa ko concerné am na melo dëgg la euh, am na date bu fa jant yegg bu mu koy weesu dëgg la mais noonu dese yeneen i junniy xam-xam yu ci nekk yoo xam ne waxuñ la ko loola mooy la ca wér loola mën na jeexital ci yow waaye nekku nag loo xam ne nag moo yor say mbir ba di ko doxal ak déedéet yooyu dañuy def ay jeexit rek te jeexit yooyu tamit yàllaa ko bind nekkul ne daf lay xañ wërsëg ba daf lay may wërsëg déedéet xam-xam bu nit ki war a jëfandikoo la pour mën koo utiliser ngir ya ca mën a sababoo mën caa jot ndax lu ci nekk yàlla bi ñu koy bind ci ay sabab la ko bind amul leen lu yàlla bind ci loolu ay sabab maanaam sabab mooy lu waral nàngam ndax yàlla mi def nga juddu ci biir sàngam waaye nag jël saw tur euh, ko ne la yow bidiw sàngam planète euh, euh, burju sàngam mm, saasam déedéet yooyu doxut parce que tur yooyu yaa fi jiitu yow nit ki munta adapté woo ci loo xam ne moo fi jiitu da nga juddu ba noppi door am semaine ñu door laa tudd kon tur wi euh, calcul saw tur rek te xilmul xisaab ilmul aaruf mooy xam-xam bi jàngale wàllu calcul xam-xam bi jàngale wàllu tur sax buñ ci delloo woon képp yu bari dañ koy teggi parce que maîtriser ba ca war dafa des calcul nit ki li muy prononcé ak li muy bind ci kaw nañ dëppoo rek mais soo bindee loo xam ne prononcé woo ko wala ngay prononcé loo xam ne bindoo ko yooyu yëpp ay détails la yoo xam ne xañ na danañ ci ki beneen yoon waaye daal ñu xam ne heure yi fixé wut waxtu yi fixé wut minute yi fixé wut seconde yi fixé wut international rek moo am boo xam ne fixé na mooy ni ñu séddalee heure mondiale bi ci àdduna nga xam ne. waxtu yi mën nañu wuute waaye minute yi trent yi moom duñ ko wuute dafa am nu yàlla bind àdduna bind ko suuf si gis nga man nga jóge fii tey di tukki tey yegg démb ci réew yi mën na nekk tey nga fi jóge jëm amerique tey la nga yegg samedi day ci yenn ci réew yi parce que distance bi xatul ist maanaam euh, euh, alxatrul iftiraat yi ligne bi nga xam ne moo moo séparé heure yi boo jugee ci gox bu ko gën a sori gox bu sori jëm ci gox bu sori te heure yi ëpp ñaar fukk ak ñeent man nga jóge fii tey masaan am na foo jóge ci ci Chine jëm amerique boo fa jugoon tey ci dimanche boo yegg amerique da ngay fekk ñu nekk seen samedi ba tey nga xam kon dañ fay jóge tey nga yegg démb yooyu yëpp ay xam-xam ñu war a comprendre la war ko mën a jariñoo ci anamuk xam-xam te bañ koo jariñoo ci anamuk naxaate wala anamuk te te téere yi nga xam ne téere yi yëpp daanaka lu ci ëpp ay foo la ma waxaat ko téere yi ñu jàng fii ci réew mi yu ci bari di ko jëmee ci wàllu lasaraan muy abul masar faleki yi euh, euh, man ba usul ramli abdul fatah tooxi yi asaayiri jatu bi ak hidayatul xibaat ak samsu maxaarifil kubra yooyu yëpp du téere yu insisté yu tege ci xam-xam ba mu war a tege am na xel la bu tax ña ko def def ko par exemple imaamu xasaali da daa wax ne képp ku dugg ci ku war gaalug sikkar dugg nga ci gaalug danse nit ñi mel nga dugg ci géej gi boto bi la xar te amoo mënoo fey nga mucc lu jafe la soo muccee na mën ngaa bokk ci gën a mag abal masar fale kii looloo ko dal yoon wi mu jël moo ko génne ci diine ji mu dem ba dugal ko ci lii mu genn ci diine ji nek ca sangara sa di daanu ay gris téré ya ña gëmul yàlla doon jangal mu dem falsifier ko bind koy téré ñun ñu jël téré japp ne dafa wër déedéet dem leen ngeen gëstu lool da ngeen dem ngeen gëstu ko ngeen gëstu ko mom gëstu fa mu tambalé won julit haqqan nit ci man na dugg ci mbir mo xam man na dem ba genn ko ci diine ji te dugg ko motax lepp luy dugg waxtu wu nek ko muy del ci diine ji waxtu wu ko nëree genn nga bakko xam-xam bu mën a doon jëf ju mën a doon saa bu génnee li charia di jàngale bee ba nga bàkko fa te xam ne amatul njariñ sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla sunu borom deful ci maanaam lu xaraam luy faj amul lu yàlla xaraamal luy faj amul li yàlla daganal mooy faj kon nag bépp xam-xam booy jëfandikoo wala lu mu mën di doon dee ko natt ci ilmu sharia dee ko natt ci xam-xam bi wér waye ñun kat yépp xam nañ né abul masar falaki yi faatowul ci diiné ju wër ci l'islam né kon doon gëssu top turu yalla loola dem ba génn ko ci diiné ji mu mujj ku ko bëgg soxla ca baari nga koy fekk fa ñuy jaayee sàngara fa nangam mu mujj tubbi génn ci téré yi mu bind ci abul masar falaki bo mu bind sa tudde ko même turum ak yenen téré yi bind yu ci bare bare sax boko jangé ba ci biir ta xam ko da ngay bo jangé téré yi nekkon ci bu wala ci siin nga xam gëmul yalla la même chose kon xam-xam yooyu insisté wut ba nit ñi jàppee ne xam-xam bu ñu war a jëfandikoo la cent pour cent da ngay seet la ca wér la ca jëppoo tamit ak xam-xamu science ak xam-xam bi ñuy jàng ci ilmul fëlëg d'accord ndax xam-xam moom kenn moomu ko na wér rek sallallahu alayhi wasallam nee na alxikmatu daalatul mu'min yaltaqitu aysu wajjada lépp lu baax lislaama ko moom foo ko fekk jëlal waaye nag bul tax nga coppee lu wér samsu maariful kubra ka ko defoon la tax mu def ko ak xilla ba ak nañ ko falsifié ba indi fii loo xamee ne demul ak nam ndax du téere bii de dañ koy jënd ci téere yi mais la ka ko defoon xam-xam bu wér ba mu ci doon def wuute na ak téere bi léegi te moom ba mu koy def tamit lu ca baree bari nga mm, yàlla xam doy na waaye daal ñu xam ne heure yi fixé wul amul benn heure bu fixé ci heure yi yëpp ay tux juróom-ñaari planètes yi nga xam ne lenn ci juróom planètes yi wër jant bi amul ci benn boo xam ne heure dafa fixé ba tax ñu naan la sa biddiw kat mi ngi fenk dat sàngam di so dat sàngam mel ni ci dat boobu rek ci lay fenk ko so déedéet bët bu set day sensé ci bëccëg gi ñaari yoon sensé ci guddi gi ñaari yoon biddiw boobu ñu lay wax naan la heure sàngam lay fenk heure sàngam lay so bëccëg gi dañuy fenk ñaari yoon yu wuute so ci ñaari yoon yu wuute guddi gi mu fenk ñaari yoon yu wuute so ci ñaari yu wuute liñ ci liggéey bu génnee ñëpp danañ xam li ma bëgg a wax ñu ngi nuyu ñëpp di ñëpp ليال نيب جامك توفيق ديكو سافجين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته